suleymaanu amrin mu sawiyum bi najdatin xaliliyu diinin sun niyun li muhammadi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi allazi malaa quluba awliyaihi bishuhudi azamatihi wasalaatu wasalaamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi walmuslimina ajmain mbokk yi ñuy seetaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu aq di ñaan yàlla sunu boroom yàlla defal ñu tawfiix defal ñu jàmm defal leen ko yàlla defal ñu barke ci yëngu-yëngu yëpp yàlla def jàmm ci réew mi defal ko réewu jullit yëpp euh, ñu ngi fii ci Mourchid fas yéene ci bisu tey bu bi ñu fas yéene ànd dundal dund ku tedd koo xam ni yàlla dogal na Euh, mu dëddu dëddu gu nekkul dëdd muy kilifa gu mag googu di alxalifa abubakrin si euh, radiallahu taala anhu sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane si wax na ci demam law yashcuru bi giyaabihi fi qabrihi hal gaaba man sakana alquluba qalila mu ngi wax foofu nii euh, koo xam ni bàmmeel yi sa bàmmeel mooy xol yi sa fàddu mënul nekk kon xëy na dafa nëbbu ci bët yi waaye jëfam jikkoom xam-xamam euh, mu ngi fi ndax bàyyi na fi bank bàyyi na fi sarwa bàyyi na fi marja boo xam ni ci al maarif wala fadail al rabbaniya ak ci al qiyam al insaniya yoo xam ni fii ba àddunay tukki nit ñi mën nañ koo dundee loolu moo tax ci bisu tey bi nga xam ni ci la ñuy fàttaliku euh, génn àddunaam ci 1957 ren ñu ngi ci 2014 di 57 ans kon am na lu muy niru ñu fas yéene nag bu àndeek mbaaxu yàlla euh, delluwaat rek ci ni ñu waxoon léegi jàngaat dundam bokk ko yéen fàttaliku lim ñu bàyyil nan lañ ko mën a dundee naka la ñu mën a fexe ba saafara jafe-jafe yu ñuy dund delloo ko ci li nga xam ne moom la ñu fi bàyyil loolu nag ñu ngi ko fas yéene jaar ci euh, kitaabaat maanaam écrit yi nga xam ni kenn ci njabootam di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si def na ko di fay bor ndax dégg nañ ci moom mu wax ni bi muy liir la ko Serigne Babacar Sy daan tiim naan ko li ma la lebal ci sa turandoo nanga ma ko fay dañu dégg mu wax ni laaj leen ko ba xam fay naa ko wala fayuma ko ñu déggaat tam ci làmmiñam mu wax ni bind na ci Serigne Babacar si lu ma téeméeri xasida ci biir foofu nag la ñu fas yéene jëm bind yi nga xam ni def na ko ci way juróom boobu di sëriñam ñu seet lan lañ ci mën a jëriñoo jàngat ko ci waxtu wi ko defee kon ñu ngi fas yéene waxtaane a cheikhul xalifa fii kitabati Cheikh Ahmed Tidiane si ñu di ko séq nag ak ñaari mbokk ñaari wóllëre ñoo xam ni xam nañu leen miin nañ leen euh, ki ci sama ndijoor di al oustaz Mor Diop ki sama càmmooñ di oustaz Babacar tabarakallahu ñu jox leen ñu nuyoo bala ñu tàmbali liggéey bi oustaz Mor asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. barakallah oustaz Babacar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. barakallah kon gannaaw bu ñu déggee mbokk yi nuyoo bu sell boobu ñu nuyoo. ñu fas yi nag kon ñu dem ci euh, li nga xam ni moom la sunu maam ju tedd jooju bind ci way juróom ci sëriñam lan lan ci mën a jël jànge ko euh, mu mel ni buñ ko seetee lépp dundam jëmmal na ko ci ay bind ba bu ñu delloo ci bind yooyu muy sunu problème mu diine muy sunu problème mu tariqa muy suñu problème mu dund suñu problème mu réew lépp mën nañ ko saafara ci bind yooyu moo tax ñu fas yéene rek jël lenn ci bind yi ànd koog yéen jëriñoo xam-xam ak enseignement ak orientation bi ci nekk ñu bëgg a jël tàmbale ko ci li ñuy wax euh, mada taalluqihi wa taqayudihi bil xalifa maanaam moom Serigne Cheikh Ahmed si Sy euh, digganteem ak waajuram digganteem ak sëriñam di Serigne kër si euh, ndax jëmmal na wax na ni sëriñ Babacar si mooy sëriñam te itam diggante sëriñ ak taalibe dafa am lu fi dox te mooy euh, aju gi kóolute gi pas-pas gi taxawaay bi ak sax gi Oustaz Mor euh, ci mbindu sëriñ Cheikh lan lañ ci mën a jëlee luy wone moom intima am ak taalluqam ak taqayudam ci sëriñam boobu di sëriñ Babacar si luñ ci mën a jël jànge ko comme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 wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu xam naa ñu ngi nuyoo di ziyaar di ñaan yàlla jataay bi kàddu yi fiy jib yàlla nay doon kàddu yuy jur jëriñ ci diine ji ak ci pénc mi ñu jariñoo ko ci barke ki tax ñu toog fi ak leeram ñu ziar mbokk yi ñu bokkal plateau bi commencé ko ci saz Aline ak saz Babacar ak mbokk yi nga xam ne ñooy taxawu ak mbokk yi ñuy suivre fu ñu mën a nekk ah xam naa comme ni nga commencé rek ci maam Cheikh Ahmed Tijani si al Maktoum Euh, lan lañu ñu mën a jàngat ci ay bindam yuy tegtale ne maam Cheikh Al Khalifa radiallahu taala anhu moom la def kilifaam ginnaaw bi mu nekkee way juróom euh, mu mel ni ci biir aussi euh, danañ ci nattaale maayir yi nga xam ne moom lañuy ñuy tànne kilifa ndax tam ku toll ne maam Cheikh ku mu tànn def ko kilifaam kooku jar na bàyyi xel waaye surtout nag moom moo ko seedeel boppam wax ko ci ay bindam wax ko ci façon bu ne boo xam ne euh, bum ci tudd rekk tudd na màndarga ci jikko yooyu nga xam ne moom la làmboo ba mu mat ko kilifaam moo tax wax na ne abuna abu bakrin wa in kaana fi l qabri radina bihi cheykhan ila axiri dahri loolu ëmb na lépp mooy ki daal doy na ma fii doy na mu fale euh, loolu day laaj ñu delloo ko ci paramet yi nga xam ne moom lañuy jàppe nitu yàlla xam nga maam Cheikh Al Khalifa radiallahu taala anhu suñ bëggoon na tënk dundam personnalité dañuy wax ne namudaj la modèle la te ci biir modèle boobu mu ko nekk euh, côté boo ko abordé da ngay yëg ne partant la waaw nattukaay yi natte nitu yàlla ak góoru yàlla yi côté boo boo jaare pour ñëw ci moom da ngay yëg ne dafay yomb pour nga agsi boo ko nattee ci ragal yàllaam natt ko ci juddoom natt ko ci askanam natt ko ci jikkoom natt ko ci cëru yàllaam boo ci jël dafay résumer li maam Cheikh doon wax ci maam Cheikh Ahmed Tidiane Sharif al Fatimi te kuy wut nitu yàlla yooyu moo la war a booleeg moom fa ilayka yab na muhammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani maanaam chiyam yooyu valeur yooyu nga xam ne moom mooy dajaloo ci nitu yàlla ba nit gis ko xemmeem ko sopp ko ngir topp ko pour mu yóbbu ko ci yàlla jikko yooyu boo ko xoolee benn bu ci nekk moom la ëmb ci personnalité boobu te lu am solo la ndax dëgg mooy booy wut kilifa doo ko wut teg ko ci kilifa gi mais da ngay wut da ngay xam dëgg jël dëgg gi nag natt ko ci kilifa gi est-ce que mat na ko walla matu ko. Mhm. loolu moo tax soo soo jëloon nattukaay ba ci ëpp doole te moom mooy ni mu tënk woon ci alkitaab wa sunna. Mhm. te yaakaar na ne kenn du mës a tagg doomu diine lu ëpp doole ku tënk woon la ci alkitaab wa sunna. Mhm. ndax dañ daan gis ci ay waxam mu naan. kullu batinin la yuwaafiqu shara fa huwa batil lépp loo xam ne nitu yàlla dina koy wane ci biiram ak martabaam bu ngeen ko nattee ci sharia mu wuutoog moom rek xam leen ne loolu du ciru yàlla waaye baatil la neen la moo tax kon wax na ci ay waxam ne man sax man sax naka lay mën a ame beneen kilifa bu dul cheikh xalifa li man antami in lam yakun li janabihi waaye bi man aqtadi in lam yakun bi abi foofu lu am solo mu ngi fi ci waxin bi mu ko waxee waaye ak li mu wax ci biir tudd na fi luy nuru istifham waaye istifham bi dafay dàq mënuma am benn kilifa bu ma mat kilifa bu dul maam Cheikh Al Khalifa radiallahu taala anhu moo tax mu libéré ko boppam mu mën di tasarruf ci moom ci côté bu nekk moo xam ci jàngal ko ci yar ko ci orienté ko mhm. ci toqi ko ci ci ci ci ci ndono li bu ci mhm. nekk wax na ko moo tax mu indi waxam boobu xalaale ki jawwul qalbi yaa tayra xubbihi mhm. moo tax kon fa biidi bi xayrin wasfiri asaada tayri xam nga euh, wax bi dafa am lu am solo lu nekk ci biir ndax euh, xalaale ki jawwul qalb arab daf koy wax euh, misaal bi mi ngi juddoo ci Euh, ku ñuy wax tarfatu bnul abd dafa mas a ànd ak benn way juróom ñuy dem di rëbbi hmm. bi ñu demee ba ci àll bi rëbb maanaam raxal seen fiir yi def lu nekk toog ba ngoon jot jàppuñu dara ndax li fa daan ñëw ci picc yi ñëwuñu ñu daal di dindi seeni fiir bay ba ba war a ñibbi bi ñuy dem picc yi commencé di ñëw commencé di cof hmm. mu wëlbatiku xool leen ba si yàgg yaramam daw mu daal leen di wax xalaale ki jawul qalb moo tax fa biidi bi xayrin wasfiri asada tayr mooy foofu daal lu leen fi neex def leen tey yéen a ko moom waaw man maa ngi dem moom nag la maam Cheikh jël moom séddee ko maam Cheikh al Khalifa ne ko sama xol bii tamit lew na la doom lu la ci neex defal moo xam ci àdduna la moo xam ci àllaaxira parce que gëm na ne gëm na ne du ko yokk lu dul lu koy yokk ci koom ci yàlla subhaanahu wa taala moo tax yooyu lu am solo la moo tax euh, tudd gi mu koy tudd sax da ngay yëg ne dafay neex ci xol dafay neex ci xol lu tax ndey dafay yëngal yëg-yëgu doomu aadama yu xarrik al mashaa'ir moo tax mu muy wax naan xolowun bi kulli lisaanin dikru chimatihi wa tayibun bi lisaani dikru chimati maam Cheikh li gën a neex ci moom muy waxtaan ci maam Cheikh al Xalifa ni mu koy neexe ci bindam bu toogee di waxtaan tamit da ngay yëg ne waxtaanam yépp fa lay tàmbalee waaye tamit fa lay terminer ndax yëg-yëg bu mu am ci moom xam naa daal ci tënk loolu mhm. mën nañ ci jële ne mhm. ku toll ne maam Cheikh ku mu jàpp muy kilifaam kooku jar naa jàng personnalité mhm. ba képp kuy wut kilifa même bu dul sa kilifa tamit ka ngay wut comme kilifa nga natt ci moom maa ayir yooyu est-ce que daje na ci moom wala déet ndax tam kii yóbbu nit ci kër yàlla du ko jóg rek mën a yóbbu nit kër yàlla barakallah loolu am na solo oustaz Mor ci ni nga leerale ci abuna abou bakrin wax nga ci yu am solo wax nga ni euh, dëggal nga ñaari yëf mooy njaboot ak kilifa mm-hmm. maanaam njaboot buy tànn war na am na maa yiir am na ay critères yu mu war a tànnee mm-hmm. kilifa itam bu matee na mu war a mate am na taxawaay bu war njaboot moo tax nga wax ni wane nga ci rida bi te mooy nangu gu nangu ni dootul amat sëriñ bu dul moom parce que dootul gisul lu muy seeti feneen wane nga aussi ni du ku muy roy du ku keneen fu muy royee leneen parce que li bëgg a roy mu ngi ci Serigne Babacar si tabaarakallaahu loolu am na solo euh, ci ni nga ko leerale oustaz Babacar euh, contexte bi ñu nekk ak Mor te muy lu am solo euh, ñu war a jàngat diggante nit ak ku muy topp Serigne Babacar si mooy wayjuru Serigne Cheikh di Serignam moor wax na léegi ci ay abiyaat ay way yoo xam ni Serigne Cheikh moo ko bind di wone ak ajoom ak tënkoom ci Serigne Babacar Sy eh, yow lan nga ñu mën a jeexalaat ci biir mbindam ci loo xam ni day ñëw dooleel li moo moor wax bu ko defee mu mën a nekk bind ci képp koo xam ne yaa ngi am eh, topp wala koy roy asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp di itam rafetlu kaddu ubbi yi ak kàddu yi ci topp di leeral attachement bi maam Cheikh na Tijaan yi am ci sëñ Babacar Si ak itam la ca nekk ci ay jagle-jagle ak ay jàngale xasiida boobu moor tudd rek daanaka buñ ci yemoon dafay mën a doy sëkk mm-hmm. waaye cofeel gi mu am ci sëñ Babacar Si moo tax yem yemloowu ko ci benn xasida foo dem mhm. danga nga fa fekk ay mbindam yoo xam ni moom Cheikh na Tijani Al Maktoum mhm. mu di ko wax ci sëñ Babacar Si waaye itam li ci gën a bari jàngal njaboot ba ba àddina àddinay tukki nan la war a ànde ak kilifa gu mat mhm. loolu itam daf cay feeñ ndax xam nga comme ni nga ko waxee bi mu waxee fii nii jubiltu bi ma fiihi rida lii walil hawa waha ana min xubbil xalifati sakraanu loolu dem ba ca biir mu wone ni tëbu ma tëb rek sopp sëriñ Babacar Si ndax lan taaraftu bil ayaati lamma araftuhu waxad farra anni hiina baayaatu xiilaanu mu ni nit dafa war a am ci mbir mu muy gëstu daf caa war a am vocation al mayl ndax di làmbatu rek warul tax kenn jóg mu ni man nag am naa vocation bi mhm. waaye itam am na lu ma motive mhm. ci biir vocation boobu am na daafia mhm. mooy lan dama gëstu yi ñu war a gëstoo nitu yàlla nan la war a mel ku ñu war a topp ci yoonu yàlla nan la war a mel ma gëstu ko ba fekk ko ci sëriñ Babacar Si nee na loolu moo ma motiver nag ba cofeel ga daal di dikk ma nekk nag fii hubbil xalifati sakraan amatuma ci sago maanaam loolu dafay wane ni cofeel dafa am fum mu war a tege sopp kenn du ko làmbatu boo ko làmbatoo day daal di mujj rek ci ay isq ak yu demee noonu nga xam ni ay falaa falaa rek lay mujje waaye cofeel gu tege ci vocation tege ci motivation tege ci nga mën koo argumenté kii lu tax nga sopp ko nga ni dama gisul ku ni mel wala bi ma gisee ku ne mel it moom ni mu mel doy na ma. Mm-hmm. moo tax mu ni bi ma ko soppee nag la ca war a toppaat léegi mooy nga jaayante. Mm-hmm. nee na looloo tax ma jaayante ak sëriñ Babacar si. Mm-hmm. ba dootuma am beneen sëriñ looloo tax mu ni wa inkaana fil xabri. radina bihi xam ni danga ni même bu dee ca bàmmeel ba moom lay communiquer li may war a def ci sama tarbiya ak sama àddina di ko doxale dugg bàmmeel du taqale nit ku mat ak njabootam. loolu il faut le dire xam naa loolu yeneen i leeral dina ko dina ko mën a indi waaye itam euh, leeral la boo xam ni dafay wone ni ki ngay tànn yoon bi nga war a jaar ba tànn ko di leen ko bàyyi xel jamono bu nekk. ndax ay aayaat la yàlla indi yonent bi sallallahu alayhi dafa jàngale. bi mu jàngalee yàlla ni ko matal nga. mottalee naa ci yow samam njàngale bu jëm ci samay jaam beneen jàngale amatul. waaw wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan mhm. waaye bi muy dem mu ni wutal naa nag ma itam mhm. uutal googu yonent bi uutal nag critères yi ñuy seet ba xam ci kan la daje yooya ku mu daje mooy ki jara topp mhm. moo tax ba ñu laajee sëñ Cheikh nag mu ni am baay taxul nga tiitaroo ko waaye suñu baay bii jar na tiitaroo abi wa abi maalil kiraami adiluhu ku am baay boo xam ni jamono ba mu nekk ñëpp moom la ñuy roy wala ku bëgg a tekki dara wala nga bëgg a àgg fenn fi danga bàyyi xel njàngaleem. Mm-hmm. nee na bu la neexee nga di sama baay la. Mm-hmm. ndax kenn du ko mën a jam bu booba nee na te it gis naa ni ndaw mën na jariñu ci moom comme ni borom xam mën a jariñoo ci moom borom alal mën a jariñu ci moom borom ndombok tànk mën a jariñu ci moom waaye rawatina ndaw saa yoo fekkee sëñ Babacar si futuwa gi ngay fekk ci moom. lu ndaw am am activité boo ñëwee royaat ci moom futu wa googu te ku représenté mission yàlla war koo taxaweel diineem war koo taxaweel péncam war koo taxawal ci aajoy jaamam bu ñu la fekkee ngay nooy dañu ne am na lu mu manqué loo xam ne bu dul woon ak loola mu jara topp waaye bu boobaa dootu jara topp bu ko manqué kon yaakaar naa ni loolu moo indi ci attachement bi góor gi am ci ci Serigne Babacar Sy eh, wax na ko ndax da ko dund ba pare waaye da koo jàngale ndax mu nekk yoonu royin ci diggante képp koo xam ni foog nga am kilifa waaye kilifa googu itam nan la war a mel. barakallah jërëjëf oustaz Babacar ci yow itam abiyaat yi nga indi doole la ko li nga xam ne moom la mbokk mi ma wax léegi Mor Diop ci xasida boobu nga xam ni mat la am mooy xayaatuka fi dunia humumun wa ahdaanu euh, indi nga ci ci biir euh, loo xam ni sunu maam Cheikh moo ko wax ci jubiltu bi ma fihi rida waliyal hawa wa ha ana min xubbil xalifati sakraanu euh, waxe ni cofeel gi mu am ci Serigne Babacar Sy dañ ko mooñaaleeg moom waaye itam euh, wax ni euh, dafa mandi dafa mandi ci sopp gum ko sopp te wax nga ni dafa am yu ko waral ndax itam cofeel nit warul xëy rek sopp noonu kese kese waaw cofeel dafa war a dafa war a dafa war a am fu mu tegee ndax dafa rëy te xol waroo bàyyi ku ne dugg ci moo tax mu ne bi mu làmbatoo ba daj ni war na sopp nag booba nag la sopp sopp goo xam ni daanaka dafa mel ni ku màndi ah, am na yeneen yum ci teg tabarakallah loolu am na solo euh, oustaz kon euh, fekkee boo amee kilifa mu mat kilifa da ko war a jox lépp nag te tënku ci moom tënku mat defe naa ni loolu la maam Cheikh wax ba ci bàmmeel sax du tee mu doon sëriñam mm-hmm. euh, waaye bu ñu ñëwee ci leneen fi karami yi wa sharafi xisaalihi mm-hmm. euh, sëriñ Babacar si dafa am lu bari loo xam ne ci wàllu jikko ci wàllu wàllu comportement mm-hmm. euh, yoo xam ne daf ko incarné nit ñi mën cee jàng jëriñoo ko ba abadan mm-hmm. euh, est-ce que mën nañ mën nga ñu indil ci bindu Serigne Cheikh lu luy jëmmal jikko yu tedd yi nga xam ni Serigne Babacar Sy rango woon na ko ngir ñu mën cee niitu mën cee teg suñu tànk defar ci suñu àdduna waaw xam naa xam nga bu ñu waxee ne personnalité maam Cheikh Al dafa nekk personnalité modèle euh, li ko waral mooy li ko mooñ moo tax te moom mooy jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekke woon te moom tamit la fi bàyyi te yi tamit moo motivé woon risalaam ndax boistu li utam bi utammima makaarimal axlaaq moo tax makaarimal axlaaq yooyu jikko yu tedd nga yooyu moom ci boppam sax moom ci boppam moo jëkk a bind ci ay bindam wax ne bépp jikko bu ñuy tuddee makaarimul axlaaq bu yenent bi amoon fexe naa ba roy ko ci moom am na ñuy wax sax trois cent soixante jikko mais moom bind na ci lu bare ci tegtal rek makaarimu axlaaqin wa tasri bi nisbatin li asda fi baxrin faara wahiya taamiu mu tudd ca zakaun wa wafaun bal saxaaun inaatatun wa xilmun wa sabrun innahu lmutawaadiu donc noonu la ko toppee tudd ci jikko yépp ne moom fexe na ba incarné jikko yooyu moo tax mu am shaxsiya bu mel noonu euh, loolu mooy tax ñu gis ne li xaaj yi mbay doonde mbay doon wax yal yokk leeram naan maam Cheikh al kenn mësu koo jam laa fi shariati walla fi lxaqiqa ndax bi salaa sallam tànkam fa teg tànkam moo tax ni mu dundee ci ndaw noonu la dundee ci mag noonu tamit la fi jógee ndax xam loolu ñuy tudde neen wala caaxaan lam ya'la fi lbutla id kaana fi waaw kon ki noonu ci ndaw fa kayfa ya'lafahu fi shaybi wal harami mënul nekk mag du sonn ci boppam ba franchir obstacle yi ëpp doole ci jeunesse am ci ndawam dem ba nekk mag bee jaaw di def yoo xam ne yu kenn munta layil la moo tax loolu moo ko mayoon mu sañ a wax ne su ma ñaanee yàlla yëg gëm naa ne yàlla du ma gàntu lu tax ndax lii tax yàlla di gàntu jaamam mooy fexe naa ba moytu ko mhm. wala musumaa yëg fu ma ko defee mhm. moo tax mu waxoon ne musumaa yëg fu ma moye yàlla waaye tam musumaa yëg fu ma defee bàkkaar mhm. donc yooyu ci ci tënk boo ko toppee mhm. euh, moom la maam Cheikh jëmmal ci ay wayam mhm. ndax tamit maam Cheikh moom daf ñu defal portrait maam Cheikh al Khalifa radiallahu taala anhu mhm. ab yaat yi boo ci jël boo ci jël rek am na lu mu la mën a jàngal ci ci personnalité bi da ci gis générosité ni mu nekkee woon ko tabe ni mu nekkee woon ku modeste ni mu amee woon xikma ci ni muy tatbiqe ahkaam yi te du tax tamit mu mu jéggi sharia yooyu yëpp moo tax muy wax naan Mm-hmm. wajadtuka shaxsan laa yamallu min an nada mm-hmm. ida dannat al ashjaaru yowman bi udiha mm-hmm. mu ne ci tënk rek pour wax générosité mu melal ko ak garab xam nga garab sax wala moo ëpp doole garab ndax garab li muy li muy nekk généreux généreux lépp léeg-léeg da nga ñëw soxla ci moom ker doo ko fa fekk léeg-léeg nga ñëw soxla ci moom meññant doo ko fa fekk ndax garab day jëri waaye nag nee na maam Cheikh Al waxtu woo ñëwee li nga soxla boo ñëwee fekk ko fa ndax générosité am moo tax wa kunta wa mal ahkaamu tanhaaka lahdatan an lutfi law ardaytaha bi xududiha mooy nim daan sàmmoonteeg xududa sharia waaye tamit ak situation dund nit mooy doomu aadama ndax nit ki ki yàlla jox cir muy man di atte péncu nit faw mu boole ñaar yooyu moo tax sëriñ nitu yàlla bu yemee ci sëriñu daara kese kese kese ña mu yilif ci coonu la ñuy dëkk mhm. ndax dana leen tënk ci sharia boo xam ne mhm. yàlla tegu leen ko woon mhm. ndax tamit faw nga di ko nattaleeg dundu doomu aadama ndax sharia bi daa ñëw pour organiser ñu sunu dundu penc loolu moom mooyoon maam Cheikh Al moo tax bu la daan àttee dana fexe ba li sharia wax du ko jalgati waaye tamit dina fexe ba bàyyi nit situation dundu nit ak dundu doomu aadama moo tax wa fiika min al axlaaqi maqtadaat lahu anasiru hada al bi waxuma la leen waaye anasiru arbaa yi yàlla bind sax jox leen kàttan amoon na lu ñu mayoon maam Cheikh Al ndax melokaanam mul moo ko may wa dumta amir al xaqi wa sidqi wal wafa mhm. rafiqan bi biidil ardi turran wa suudiha mhm. moo tax ñi mu dund ndool ñépp ku ne joxoon nga ko cër ndax lu tax mooy ni mu mel ak yow ba ci ñi nga xam ne sax dañu fi nekkoon nekk ay colonialiste am na loo xam ne mayoon nañ ko maam Cheikh Al Khadim waxuma la ñi nga xam ni ñoom la dëkkaloon ci ci biir dëkk bi. Mhm. loolu mooy tax mhm. euh, li li mbokk mi waxoon rek ci ci ci tabeeg maam Cheikh Al mhm. euh, xam nga ci tënk bu gàtt. Euh, Hicham ibnu Abdul Malik dafa ñëw di aj si Màkka. bi mu ñëwee kaaba gi xaw xat lool. mu wër wër wër sonn mu dem toog ne naa ba mu feex te xam nga mi ngi bokkoon ci ci al al amawiya euh, bi mu toogee di noppalu nis tuuti rek Zeynul Abidin ñëw nit ñi commencé fa xalal ko daal di écarter bàyyi ko pour mu def tawaafam affaire bi jaaxal ko nag mu ne mais kii kan la Farazdak tontu ko ne ko hada bnu Fatima in kunta tajhaluhu bi illa fi tashahudihi lawla tashahuduhu la kaana na naam mm-hmm. ci générosité mu ne kii boo ko xamul mm-hmm. mooy sëtu sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam maamam moo tëj euh, annubuwa ak risala waaye générosité bi mu amoon ci nee na kii bu fekkoon ne euh, dana wax dana wax déet fenn la koy waxe dina wax déet fenn la koy waxee mooy ci taaya gis nga générosité boobu mu wax bokk na ci li maam Cheikh al Khalifa doon ne ci jikko yonente bi salallahu alayhi wa moo tax lu ne daanaka sonne ngir rek loolu bu nit soxlaa mu mën a am fu la mën a féete tabe ci xam-xam tabe ci jikko tabe ci maandu waaye itam tabe ci am am tabe ci lépp lu mën a doon moo tax raufun rahim la doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, oustaz Mor ci ni nga tënkee ci li nga jàng léegi ci xasida yi euh, indi ay jikko yu mag dafa am loo dëggal ci li nga wax Euh, li nga dëggal mooy dafa am lu maam Cheikh waxoon ni euh, euh, waa penku ñoo ñu gën mag ñu njëkk ñu gën leen mag ñu mujj ndax ku mën a taxaw wax ni fàttaliku ma fu ma tooñe sama borom fàttaliku ma fu ma tooñe nit loolu lu lu lu rëy la waaw loolu lu rëy rëy la tabaarakallaahu te loolu wax nga léegi nii Serigne Babacar Sy wax na ko ci làmmiñam te li nga jàng léegi Serigne Cheikh bind ko ci wajatu ko chaque san laa yammalu mi na nada ni ko sa tabe raw na tabe garab ndax garab yenn saa mu rak te yow du la ci fekk loolu doy na sëkk tabarakallahu euh, oustaz li nga xam ne moom la oustaz Mor wax léegi wax ko ci personnalité sëñ kër si wax ko ci jikkoom ju màgg euh, delloo ko ci li nga xam ni mu ngi ko jëlee ci bindu Serigne Cheikh yow lan nga ñuy waat ci mbindam lu ñëw sof li nga xam ne oustaz Mor wax na ko ci lu ñu mën a jàngee ci jikko Serigne Babacar Sy waa kay jërëjëf xam nga Ali jikko dañ koy investir comme ni ñuy investir alal ndax mu jur leneen jumtuwaay la bu yàlla jox nit ndax xel ak jig ko ak xam-xam moom la yàlla ràññeele doomu aadama ndax li mu ko soxlaa ci kaw suuf mu man ko remplir bu ëllëgee siggal bi yàlla bëggal jaamam siggal ko ko ci kanam jaamam yépp nit ki man ko remplacer maa tax xam ni kii li tax yàlla tànnoon ko yàlla juumul ci tànn bi wala yàlla deful erreur. lu mm-hmm. waxin la. Mm-hmm. moo tax jikko yooyu maam Cheikh Tijaan yi da koo tënk ci wilaaya. Mm-hmm. ndax ko balaa mat nag yàlla dugal ca loxo te mooy jikko yi yàlla wàccee ni yooyu laa bëgg ngeen sol ko muy seen yére. ngeen takkaayoo ko muy seen gànjar moo tax mu ni maalil xalifati mislun fii tasarrufihi wa fii tasarrufihi sirrul wilayaati parce que investir jikko ci tasarruf lañ koy xame jikko ju tëju rek kenn xamagul nit ki nan la mel yàlla li muy foor foor bu bindul woon du tudd xaaliq mm-hmm. donte man na ko bu wërsëgul woon du wërsëgalul woon du tudd bu jéggalewul woon du tudd xafoor nit ki itam jikkoom balañ koo xam ci moom mu investir ko te mooy tasarruf yi muy def digganteem ak ñeneen yi moo tax nag maam Cheikh wax ni jikkoom moom jikkoy waliyu rek nga ko mën a jiiñ te du doon benn wilaaya mboolem wilaaya yi yàlla jox jaamam moom ndar kepp na ko jëfandikoom feeñ na ci wilaayaat yooyu yëpp xamuñu lu tënk wilaat ya wilayaat yooyu ñun waaye xam nañ ni mhm. alquran joxe na ni ngëm dana joxe wilaaya mhm. kon tasarrufu sëñ Babacar si ci imaan xaalis lay tege mhm. du def lu weddi luy weddi ngëmam ñaareel bi taqwa dana joxe wilaaya kon xam nañ ni la muy def lu ne sétt na ci ëllëg mu mën a xool yàlla au fond des yeux xool mag ñi ko dénkoon itam ñu xam ne lii mu doon def bàyyi na ci xel boppam taxul mais bàyyi xel li ko ci yàlla sant moo taxul gis na ni itam wilaaya bokk na ci dem ba dara mënatulaa yëngal lu dul yàlla mhm. dara mënatulaa jógloo lu dul yàlla mhm. moom itam loolu feeñoon na ci ay jëfandikoom dootu yëngutu ci lu dul yàlla dootu jëfandiku ci lu dul yàlla moo tax mu ni wa fi wa fi tasarrufihi sirrul wilaayaat mhm. mu ni nag waaye ba mu demee itam bàyyi na ko fi ab xaalana suuratan fii xusni maslakihi mm-hmm. moo yaa xusna maslakihi fii kulli suuraati mm-hmm. nee na image boobu bàyyi na ko fi def ko yoon woo xam ni sóobuwaay la jikko yi nañu xam ne jumtuwaay yu ñu yàlla dénk lañu koy jëfandikoo waaye bu ñu ko def tiitër wala ay màggaay wala ay dayo yoo xam ni dañu ci def leneen loo xamante ni day dellu ci chantage wala mu dellu ci ay manqué-manqué mhm. waaw moo tax mu moom xam nga seede bu dee sëñ Cheikh rek bu doon tey ci aada yi nit dañu naan doyul seede ci sëñ Babacar mhm. ndax ñenn ñi day naan baayam la moo tax ñenn ñi dañ naan sëriñam la moo tax mhm. moom rek la sopp waaye ñeneen ñu dul moom buñ waxee ci sëñ Babacar Si nga xam ni kon li mu doon wax dëgg la ndax bu demee ba waa ma kër maam boroom Touba. maam Cheikh Anta Mbacké ñu daan ko tuddee borom dërëm ak ngërëm kon boroom cër la tubaab yi ku ne xam na leen ak ni ñu daan def ñi am solo ci suñu gox yi ñu exilé ko ca Ségou sëñ Babacar si ni leen du ci dal na dellu si parce que li mu li moor wax ci tubaab yi bàyyi xel bi ñu ko bàyyi woon cër xel wala yow sax yaa ko doon synthétiser moom tubaab yi wegoon nañ ko ba duñu weranteeg moom lu mu joxañ te ñu xam ni dogu na ca dañ koy daal def ñu daal di jëliwaat maam Cheikh indi ko. Mhm. maam Cheikh Anta ni wayal ma ko. Mhm. mu def ci moom xasira bu toll na njey du fi xaj waaye mhm. bokk na ci wane na ko ni yaa suqali diine ci sowu jantu Afrique gi yow sëñ Babacar Si. yaatee jàkka yi jooy. yaatee nangam yaa def nangam wone ni mat gi nga mat yamale woo ko rek ci fi nga bokk. waaye danga nga koo yamale jëmale ko ci jaamu yàlla yëpp. maam Abdoul Aziz Si baax lan la ko wax. ku dib jirim nga yërëm miskin mu ñëw nga teral ku aajoom ñëw nga fajal aajoom te doo fayu bor mhm. loolu nag hmm? yaa yanu yan bi te wonkoo ku yanu yanu yàlla ñëpp xam ni seen aajoo nga ci yow te man nga koo faj mhm. sëñ bi boo wonkul dangaa gore waaye teg nañ la lu jara wonk ba tàyyi mhm. kon defe naa ni moom jikkoom yooyu li tax ma li tax nag mu dal xel maam Cheikh nee na mi ngi fi ab xaala naa bàyyil nañu fi koo xam ni ku bëgg a roy man nga caa roy ba mu mat sëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ni itam bokk na ci jikko yi. Mm-hmm. yàlla léeg-léeg day may jaam ni ko jëlal. day yuppil jaam ruxsa ci yuppil googu la bokk. xam nga ci sariya. may nañu la maanaam ak rux sa ci usul mooy àtte boo xam ne daa wuuteeg lañ la santoon. te sa ngànta koy waral. boo dee julli wàññil boo boo tukkee. boo dee woor bu la neexee bañ a woor ba ba ñibbisi hmm. boo dee def nangam boo gisee médd bu sañ nga caa lekk euh, ndax dangaa loru yi hmm. sëñ Babacar si nag moom moom ruux sa dafa ni yàlla duma ko jël hmm. donte yonent bi sax nee na ay waay waay jël leen teraanga bu leen yàlla jox waay te mooy ruux sa mu ni man duma ko jël parce que ku gore ak li la yàlla defal te mënoo koo fay jéemoo koo fay ah kon bu la nee may naa la lii kat waaye te man nga koo def te du ca wax dara kon man dama koy def yara raxiisata haza min tawarruihi naw an min al ismi yudni li raziyaati waaye foofa tolluwaay la ñun bu ñuy dem booy boo ñuy wàññi julli booy boo ñuy bañ a koor kon yaakaar naa ni moom ci moom loolu moom la concerné yàlla jël naa ta rux sam jërëjëf may nga ma ko waaye bu may tukki damay matal damay woor te kenn mënuma maa tax a lekk méddi mm-hmm. mu ngoog yooyu mm-hmm. bokk na ci yi nga xamante ni wone na ni moom kon jàngale na jikkoy noble jikkoy koo xam ne am na dignité ci kanam boromam. Mm-hmm. ndax ñoom dañoo àgg foo xam ne dañuy dem ba gis ni sama digganteeg yàlla ay naafilaak man doom nekkatu fi lépp farata la pour mm-hmm. ma yàlla duma la may ci sama dund nga naan lii de bu la neexee def lii man dóob la lépp pour man farata la wala mu usalli si waa fardi lu ma julli farata la wala mu asumi lu ma woor farata la. Mhm. amuñu kooru gàtt ngaak nàngam mhm. parce que ñoom dañuy jàpp ni yàlla loo ko defal. Mhm. farata booy am faraax buñ lay indile leneen naan la lii naafi la nga fiy def ñoom gisuñ ko seen digganteeg seen borom ndax seen digganteeg seen borom lu ñu ko ci réserver di ko muy teggi di wàññi di wàññi amu fa. ñoom pour ñoom lépp dañoo wax jamono bu nekk jamono bu nekk ak waxtu gu nekk. seen farata du mat yàlla. moo tax du ñu jëfandikoo ruux sa yooyu mu itam laa yaarifu shakka fii ilmin wa fi wa fii wa fii amalin te bokk na ci ay jikkoom waajal na boppam ba lu njaboot di soxle di ko ko laaj du fa nekk di làmbatu xam nga ki yaakaar ba ñëw mhm. làmbatu fekku fa dara mhm. wala nga sonn lool soog koo jox lu mu mën a teg ci loxoom mhm. danaan kii de ndeke bu ma demul woon <laughs> addina addina tukki te itam nee na am na jikko boo xam ni dogu ci la bokk maanaam kilifa day am loo xam ni boo ca xasee dogu bul ci amati looy hésité mhm. ndax koo xam ni bala ngaa di nàngam waawi xëy bu jib mhm. boo nee waaw waawi xay boo jib boo nee déet déete xay boo jib mhm. sëñ bi booy dogu amatul koy tàggu moo tax mu ne amul morom ci bu dee dogu amul moroom ci bu dee saxal mbir parce que day xam ni la mu saxal jógewul ci moom ca xay bu la jóge mu soog koo saxal mu bokk su ko defee kon yooyu ay tegtal la yuy wane ni moom ay jikkoom buñ doon wax ni martabatul islaam mhm. ñu ni boo fa tolloo mu jëflante ceeg yow ba nga doy la sëkk mhm. ndax xam ni sa niveau mhm. am na ku ñëw jël werd bi ni du dugg ci lislaam bi ni ko jox ma werd bi mu ne ko tolloo guñ fa ci marxab ma marxalatul islaam bu doon ku bëgg daraja nag ak di wut taalibe day gaaw jox ko werd waaye yoonam nekku ci na jël weer di wala déet kii ak jullit bu ñëw la naa fexe ba fi mu war a jaar ba déggoo boromam naa ko fa teg mm-hmm. boo ñëwee indi imaan mu tolloog yow ca imaan ga mm-hmm. boo indee ihsaan nag xam ni moo la ca raw mm-hmm. comme li Mor waxoon ci surtout Seydina Ali boobu rek waaw barakallah jërëjëf ci ni mu leeralee moom tam wàllam ci wane jikko yu mag yi nga xam ni sunu maam ju tedd jooju ràngoo na ko indi ko ci mbind Serigne Cheikh ci xasida boobu nga xam ni man la mooy yaaman yu saarixu li shakwa li illaati daani uzakirka ayatin bi ayati ca nga jële bayti bi nga wax léegi wala abiyaat yi maalil xalifati mithlun fi tasarrufihi wa fi tasarrufihi sirul wilayati tabarakallahu ni nga ko firee Babacar am na solo maanaam wax nga ni maam Cheikh wax na ni application bi nga xam ni moom la Serigne Babacar si di appliquer jikko wane na ni wilaya yëpp daje na ci moom loolu nga leeral léegi ndax euh, euh, jikko euh, stocké wu ko waaye daf ko appliquer daf ko traduire mu nekk mu nekk loo xam ne dafa nekk waaqia bu ñuy jàkkaar xam ne lii mooy dëggu lii mooy tabe lii mooy maandu lii mooy nit ñi di ko dund moo tax mooy baatu li nga wax ni li mu wax ni ab xalanaa suratan maanaam yooyu yëpp daf koo jëmmal jikko yëpp daf koo jëmmal nga mën a xam ne lii mooy dëggu lii mooy maandu lii mooy ragal yàlla tabaarakallah ni ko waxee am na solo surtout li nga li nga mujjee wax Euh, ci dogoom wax nga léegi nii maam Cheikh nee na laa yaarifu shakka fii ilmin wa fii amalin wala taradduda fii azmin wa isbaati euh, loolu lu am solo la wax nga ni nee na xam sëñ kër si xamul sikki sàkka ci xam-xam ak ci jëf maanaa lu mu la wax lu leer la nii la ak naa la doo ko dégg lu muy jëf itam ci fu wóor la koy teg waaye li nga waxi sànq itam ni wax ni du deltu ginnaaw euh, Cheikh Diagne Chérif Euh, euh, boo demee ci téere euh, Ali Harazim bi bi mu bind ci Cheikh Tidiane Chérif mhm. Jawahir Maani mu ngi cee wax ni mhm. Cheikh Tidiane Chérif nee na bi muy ndaw bokk na ci ay jikkoom musul décider lu mu continuer wul ba mu jeex musul deltu ginnaaw kon dafa mel ni loolu da koo doon ci moom ndax jikko nitu yàlla la mooy loo songu rek mhm. doo ci deltu ginnaaw tabarakallaahu kon loolu am na solo sëriñ bi Oustaz Mor ñu ñëwaat ba tey ba tey ndax fi ñu toll dafa am solo euh, wàllu shaxsiyam personnalité am ak euh, muamala xasana bi nga xam ni def na ko ak ay mbokk daaraam ay ñu ñu mën a woowee ay taalibeem wala sax jullit yëpp euh, ndax mën nañu dem ci waat mbindam wala bokk ci mbindu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si génn ci lu gën a lu ñuy wonaat personnalité Serigne Babacar Sy rawatina ni mu daan jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la seqaloon Euh, daara ji maanaam ay taalibeem ay wëllëreem ak ay soppeem looñ ci mën a indil waaw jërëjëf oustaz xam nga personnalité maam Cheikh Al Khalifa radiallahu taala anhu moom bu la neexee sax nga ne géej la rek waaw lépp a ngi ci te ci surtout ci jëflanteem ku ne sax joxe nga ci seede xam nga li sëriñ bi doon wax Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha si ci mbokk ma nekkoon Tiwaawoon te xel ma sax xëy na xawu ko demee noonu. Mm-hmm. ñu baal ñu ci baat bi. Mm-hmm. ñoom sax dañu seede personnalité maam Cheikh Al mm-hmm. ci baat yoo xam ne tënk na lépp danga nga ci fekk dignité humaine am. da nga ci fekk muru am. danga nga ci fekk ni mu amee woon maanaam ni mu amee woon ci atarafo lu ne ak nañ li ñuy tuddee dundin dundiin ba ci sax lekkin yooyu yëpp da koy fekk ci biir kàddu yooyu. Mm-hmm. muy wax naan il est beau il est gentil il donne de l'argent. Mm-hmm. xam nga loolu ki koy wax. Mm-hmm. ñu jàppee ko ko wéradi di ko wax ci personnalité maam Cheikh Al kooku lu ne la lu nekk ngi ci biir. waaw li ma tudd yépp mu ngi ci mu ngi ci biir même générosité bi sax. duggaale na ci biir. waaye xam nga surtout ci li naar bi waxoon bi mu bokkeek moom lekk ba pare génn daal kii daal laa u baax dal yow lu ko waral parce que yëg na ne kii maanaam discipline bi mu tënk boppam. Hmm. moom rek moo ko attan. li tax li na annahu yataaddabu ma alxaq. Hmm. loolu nag mooy indi ci wàllu jëflanteem. Hmm. maam Cheikh moo ngi naan ni mu daan jëflantee xale bu tuuti noonu la daan jëflanteeg mag. amul amul amul li ñu daan tuddee distinction ci wàllu âge. lu tax mooy nit lay respecté. mooy nit ki nekk ci kanamam. moo tax. ci wàllu jëflanteem ba ci wàllu tawarru am surtout digganteem ak taalibe yi lu ñu miinoon la ci moom surtout lu jëm ci wàllu alal ndax wax na ne képp ku ne bu ma amul lu ma ziyaaree du ma dem Tiwaawoon ne na yàlla boo ko am ndax yéen dénk ñu ñu seen poche yi waaye seen pas-pas yi lañu ñu képp ku ne bala balaa maa dem Tiwaawoon am lu ma ziyaare nee na yàlla boo ko am mhm. ndax lu tax mooy dénkuñu ñu seen poche yi mhm. mais seen pas-pas yi lañu ñu sa mhm. loolu lu yaatu la loo xam ne lu jër a jàngat la tey ci suñu penc ci diggante jëflante diggante nitu yàlla ak taalibi bu ko yaakaar ko mu yóbbu ko ci yàlla xam nga nattukaay yu bari léegi dafa dafa soppeeku léegi penc mi alal moo bouleversé lépp alal ak daraja li maam Cheikh Alxaaji Malick radiallahu anhu daan wax ne mhm. ñu yaakaar ñu dundal diine mhm. dinañu dem ba ñooy gàllankoor diine bu leen ñaar jiitalee barakallah muy mhm. dërëm ak daraja inna aimata diin yan saw na xaqal islaam ida aqaamahum alxadu bayna daalayn wa darajat moo tax moom euh, bokk na ci jikko yu mu gën a ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy izzaam lillahi al wali rasulihi walil muminin izza bu yàlla mooy il est inaccessible mhm. limaam Cheikh doon wax naan yàlla tey bu fekkoon ne kuñ ne ma nga fee mhm. nga mën na mën a dem fekk ko fa kon dina doy waar mhm. mais loolu mooy azam kenn mënta laa tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful xabir bu dee azza yonente bi mooy kenn mënu ko corrompre il incorruptible mooy wane izzaam jikko boobu nag daf ko doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax maam Cheikh di wax ne di firndeel ne kenn mënu ko jënd ci alal ndax li mu jëkk a daw moom mooy alal mhm. wa abal hadiyata maa mhm. taraat rishwatan mhm. waaye wal unsa maa lam yaxrumi tartila mu ne e, cheikh al xalifa daal li feeg mu ngi yëg ne hadiya bi ci kaw mooy hadiya waaye ci suuf corruption la da ko bëgg a jënd pour am na loo bëgg def pour mu ànd ceeg yow wala pour mu protéger la ca mhm. loo nekk nekk taalibeem du tax mu nangu sa hadiya boobu jëflante bu am solo boo xam ne war nañ koo bàyyi xel parce que bu fekkee ne mhm. dañu dema dem ba penc mi léegi taalibe sax alal lay tax ñu tànn la mhm. mais alal mataliwul fépp kon ñi ak ñi dul am sëriñ ñu bari mhm. bu fekkee ne aussi sëriñ tamit alal lay tax nga di ko wut mhm. kon ñi am sëriñ du bari ndax alal mataliwul fépp mais tey léegi bokk na ci maayir yi nga xam ne ñoo bouleversé suñu société mhm. jaxase lépp ba kenn xameetul li dëgg ak li neen ndax dara léegi xameetuñ ki baax ak ki bon mais ki am alal ak ki ñàkk lañ lañu la ñu xàmmee moo tax aussi ci wàllu jëflanteem ak taalibe yi ku organisé wu woon ndax nitu yàlla bu organisé wul. danañ la gàllankoor ba fa nga bëgg a yóbbu nit ñi sax doo leen fa yóbbu. Mhm. te mooy li euh, liñ daan wax ci martaba maam Cheikh Ahmed Tidiane. Mhm. sunu wayjur si xaaji Abdul di ko Abdul Aziz Al Amin di ko wax. Mhm. mu ne bu fekkee ne dangeen ne euh, bu ma gàggee nga gàgganti ma. su ma soxlaa nga fajal ma ko. su ma la soxlaa gis la. nee na ñett yooyu mënul ànd. moo tax kon nitu yàlla il faut que mu organiser moo tax ci cadre boobu moom ku ci organiser woon la ba lu mu xat-xat xat-xat musul nangu ñu di ko gàllankoor ak ay farataam ci wàllu jaamu yàllaam ci façon bu mën a doon ak loo nekk nekk taalibi ak loo am am dara ci moo tax mu ne wal unsa mm-hmm. waaye nag fii ak mu ngi koy xaj li nga xam ne moom moo tax digganteem ak boromam daaw ko nangu loolu léeg li ko ko mayoon moo tax mu daan wax lu bari mm-hmm. sukkër si lënd na xol yi mm-hmm. si lënd na xol yi ba gisatuñu sax mhm. gisatuñu li ñu war a gis loolu ci ay baatam la mhm. aussi ci euh, li li li maam wax ba tey mën nañ ci jàngi ruuxu taadulam wa taqdir bi mu amoon mooy sens de mesure moo tax lépp lu mu daan def rek mhm. da daan bàyyi ñaar yooyu ni mu ko waxee kalimaatuhu xatawaatuhu lahadaatuhu adxat mu adxat muqaddaratan wala tadila xata ka anna laday xikmatu rabbihi yasdaadu minhu taadduban wa xulula moo tax léppam bu daan wax soxlaam sax daf koy mesurer bu daan doxi soxlaam sax jéego yi sax daf koy mesurer maanaam mosul daawul mbiccal mooy ëppal wala nga wala nga wala nga néewal te loolu lépp dafay bokk ci li nga xam ne moo doon cëram jërëjëf jërëjëf oustaz Mor tabarakallahu duñ ko commenté ndax am na solo lool te ñu ngi wax ni daanaka temps bi jeex na te liggéey bi des na oustaz Babacar kon dégg nga li Mor wax léegi lan nga mën a dellu ci moom itam ci mbind yi rek tënkal ñu ci dara ñu dellu ci beneen point balaa waxtu yi dañuy dem. waaw Mor li mu wax dafa tënk lépp. Mhm. xëy na kon ñun ci wàllu personnalité bi rek lañuy ñuy dellu si. Mhm. ci ni nga xam ni maam Cheikh tënkee na ko personnalité am. Mhm. ci ay tomb bi ci njëkk. mooy sellte. sëñ Babacar si sell rek a ko safoon. wakaana safa yurdihi qayda xayaatihi wa yurdihi ixlaasun wa yurdihi ridwaan hmm? nee na giiru dund sëñ Babacar lu sell génn génn na ci diiru dundam lu sellalal yàlla nekkul génn na ci diiru dundam itam lu ngërëmal yàlla tënkul génn na ci nee itam bokkoon na ci ak matam daan na contrôler njabootam yu raaqibu amalal wara bi xuduudiha wa yansaxuhum in jaawasul xadda aw shaanu daf daan contrôler njabootam di leen conseiller bu ñu jéggee dayo wala ñu def naka sudul noona mhm. ndax moom day bëgg ku mu yar nga am personnalité comme moom ni mu ko amee looloo tax wa hada jamaatahu mhm. bi sirri taqayudin mhm. waaye duuna ixtilaatin yuzhibu tabjila hmm? min duuni ikrahin yuzhiru alal wara fitana mu ngo nee na dafa yar mbooloom te di dépersonnalisé wu leen yar na leen te pënd jógul fit na jógul buy mm-hmm. yëngalum réew mm-hmm. waaye koo xam ne bala ngaa yar ñépp doyal mm-hmm. la jël ñépp kooku yarulu yar sa nit ba mu yaru ci biir penc mi te kenn yëgul ba nga koy yar kañ la loolu moo di teey loolu mooy personnalité te loolu yëpp daje na ci moom loolu am na loolu am na solo oustaz euh, Mor kon dañuy ñëwaat rapidement ci beneen tomb ba tey ci dundam te mooy ñu xool olu euh, yi fa wa tafawuqi martabatihi ndax euh, euh, tabaarakallaahu li ñu tudd léegi ci ay jikko ci comportement ci personnalité ku ko gàddu rek war nga nekk ku kawe ci nit ñi lan la ñu mën a demaat ci bindu maam Cheikh luy dimbal luy wane di jëmmal euh, kawe martaba ak cëru Serigne Babacar Sy est-ce que waaw xam nga buñ doon tënk cëram ak martabaam mhm. Euh, dafa mel ne danga koy delloo rek ci li yàlla subhaanahu wa taala waxoon ci maam Ibrahima alayhi salaam. Mm-hmm. inna Ibrahima kaana ummatan. Mm-hmm. mais ñu ne lu tax. Mm-hmm. wa jacalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru. wa kaanu bi ayatina yuqinuun ñu ne mooy tax. yàlla wax ne Ibrahima kaana umma. mooy alhidaaya. beneen bi mooy asabru. beneen bi moom mooy alyaqiin. yooyu yëpp nag daf ko incarné woon. moo tax. maam Cheikh wax ko ngir firndeel ko wa warisa warisa fawqa al kulli ruuxa siyaadatin moo tax abaatta anha alxaakima dillila mhm. lu lu nit doy waar doy waar bu ñëwee taxaw ak maam Cheikh al xalifa mhm. am lu bari lu mu bàyyi mhm. ak lu mën a lu lu mu am am kattan dana am lu mu bàyyi ndax jëflanteem ak ñëpp la doon jëflanteel maam Cheikh nee na même labbe yi sax dañ ko daan seet si ku génn rek keneen dugg ku génn keneen dugg waxuma laat ñeneen moo tax wa gadawta munfaridan ka annaka umma mhm. fi daati lasta bi gayrihi la mhm. moo tax amul beneen wéttal bu mu soxla woon mhm. ndax wéttal bi mu am doy na ko sëkk moo tax ñëpp riir wuti ko ku mel noonu ku ko am ci pénc ñëpp a war a daw wuti ko wa ataaka laa bi diayatin ahlu safa woowul kenn campagneul kenn waaye nitu yàlla bu bu melee ni mu war a mel li li yàlla di ko branché xoolu nit ñi bañ di ko wut si loolu duñ ko yëg sax ndax cofeel moom nga doon wax ci kaw mhm. waaye tamit nitu yàlla bu la defaree ba ku la jege defar la ku yàlla yéenewul mu defar la daf lay daw mhm. am na solo ku yàlla yéenewul mu defar nga defaru da nga koy daw moo tax ma ne mhm. aw farra minka muaanidun id xiila mu ànd ak aaya ba wa xiila baynahum moo tax su ko neexoon ñëpp topp ko yàlla aw arata la qutta kulla muaaridin maam Cheikh xalifa yàlla mayoon na ko ci cër mooy amul woon opposant parce que kenn matu ko woon opposant mhm. ndax am na ñoo xam ne amuñu noonu mhm. ndax kenn matu leen noon mhm. ndax itamit gisatuñu noonu ci seen dundu penc moo tax tawan wala kenn kay fa tuux dil xuulaa mooy am na koo xam ne li yonent waxoon rek loo ko yéene yéene yéene bu yéenewul bopp kenn mënul ci moom dara kullun yadxuluuna al janna illa man aba moo tax loolu xam naa daal ci tënk jërëjëf loolu la ñu mën a tënk foofu par rapport ak wax barakallah am na solo ci li nga indi léegi ci euh, wane màggaayu cëram wane tolluwaayam am na solo sëñ Babacar lan ngay dolli wala bokk lan nga ñu indilaat ci mbind yi lu dooleel li Mor wax léegi. waaw Mor li mu wax am na doole lool macha allah. Mhm. waaye góor gi dafay moxit boo xam ni kenn mënu koo xuus. Mhm. kenn mënu koo nuuru itam ba mu jeex. Mhm. ndax euh, bu maam Cheikh waxee ci martabaam. ak kaweeg mbiram. ni ko fal asru asruka. in amarta. wala yura illa muti an bukratan wa asila nee na ko sa jamono xëccewoo ko kenn foo joxañ ñépp dog ku gàntu sax bu dogul bu yàggee dana ne ay léewën ndax digle ñépp def yàlla mi ko moom sax defu waaye nee la tax mu ni ko boo diglee kenn du werante mooy ku werante woon it ci goonga ngay mujj mhm. parce que dootoo gis solution bu dul def joxeem rek loolu nag daf cee jublu dafay jëf la jëf jëf la jëfandikoo mm-hmm. euh, uslub balaax yi bu am solo mooy li ñuy wax alxasr mm-hmm. bu ne jamono bi yaa ko moom mm-hmm. mu dellu ca la waaja taggoon Seydina Ali ne amul jaasi ju dul jaasi dun xaaf amul beneen fas bu dul fas fasu Seydina Ali wan wane maanaam loolu moom la ñuy tuddee alxasr al idaafi bokk na ko ñeneen am na ñeneen ñu am am na ñu fi ne waaye daf ko bëgg a wax ni jaasi ja la mu defal diine beneen jaasi defu ko mhm. fas wa la mu defal diine beneen jaas beneen fas defu ko mhm. moo tax mu ni ko fal as wa asuka jërëjëf mu ngo mhm. loolu bokk na ci li nga xam ne ba tey haasa baqiyatu kulli aqtaabil wara kii mooy ndonal xutbu samaan yi fi mas a jaar yëpp sëñ Babacar mooy seen ndono looloo tax waaja ne ko suleymaanu amrin muusawiyun bi najdatin ah xaliili yu diinin sunniyun li muhammad شان أمر مو سوي بنجدة خليلي دين سني لمحمد yaakaar naa bu ñu waxtu yu dabul woon. wallaay am na solo kon defe naa ni li ci des. am na solo yow wax nga ko. bari na lool waaye nag waaw waaw dëgg la am na solo maa laa yublaxu kulluhu laa yublaxu julluhu wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakallah sëñ Mor te ñu ngi ne ci contexte du fàttaliku génnu àddunaam eh, ñu bëggoon rek bu ñu mënee am benn bayti te nga tàgguwaale ci bu maam Cheikh bind jëme ko ci génnu àdduna Serigne Babacar Sy waa xam naa ñu sant Oustaz Babacar li mu tëjee waaye xam naa nag moom lu nekk rek moom dëgg daal mooy mujj waaw te te dee moom dafa bokk ci dëgg yi ndax euh, ñuy wax sax wa jaa sakratul mawti bil xaq mm-hmm. bu la neexee nga ne wa jaa sakratul xaq bil mawt mm-hmm. loolu ulumul quran ulamaul quran d'accord nañ ci dëgg la moo tax ni mu ni mu mettee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëwaat mm-hmm. te te te scénario boobu maam Cheikh Ahmad Tidiane daf ñu ko daf ko melalal ci ay ay bindam xam nga fi muy wax naan te moom ci boppam la commencé ndax cofeel ajaban li yawmin qad raaytuka musdalan fii xufratin ajaban li baxrin mulxadi xam nga loolu doy na sëkk doy na barakallah ci ci ci ci yëg-yëg dem na sax ba ne wa fa nasiitu xatta alwaajibaati muhayaman wa abaytu xatta alxaqa mithla mufannati pour wane rek xaal bi mu doon dundee ndax cofeel ak yi tamit wàccuwaay bi nga xam ne moom la amoon ci ci pénc mi waaye nag lu ci am solo mooy kàddu yi mu mujjee mooy ginnaaw bi ñu defee yi ci aj yépp am na kàddu yu am solo yoo xam ne bind na ko al aalam al islami ngir ñu bàyyi ko xel ci dund maam Cheikh Al Khalifa. xëy na temps bi xëy na du ko maye waaye ci une minute. Mm-hmm. buñ ko mënoon a liir. Mm-hmm. lam yabqa lana wa lakum illa taqayyudu. Mm-hmm. bima taqayyada bihi min ixyaa iddiini wa tariqa. wa nashri daawati alislaamiya xataa mm-hmm. ka an lam yakun qutrun min jamici aqtaari albilaadi mm-hmm. illa wa assasa fiha min aldawaairi waljamciyaati maa yajcalu almuslimina almutaxaqiqina ala xaddin min altaaxi والتوافق الذي لم يألفه الإسلام السنغالي بل الإفريقي من قبل هذا ما كان يوصينا به من التحابب ci wàllu cofeel mm-hmm. musul wujjale tarixa yi boo ko tubaab bi laajee ne ko damaa bëgg a bind ci tarixa yi Sénégal ban moo ci gën lam ko tontu mooy policier beeg marin beeg gendarme bi kan moo ci gën mhm. du ñoom ñëpp benn drapeau la ñuy servir mu ne ko mhm. noonu la tarixa yi mel moo tax wa taawuni ala al birri wa taqwa wa adami al iltifaati ila ma yudxiluhu uh, uh, ila ma yudxiluhu bihi al munafiqin mhm. fi al qulubi min al shakki wa ila ma yulquunahu ila al afidati min ma yurithu al jazaa wal qalaq fa inna al mawta fa inna al mawta fa inna al mumin la yajza wala yaqlaq wala yarta wala yarta donc ci tënk xam naa daal jërëjëf euh, loolu la ñuy tëjee jéglu ci temps bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallah dafa mel ni waxtu wee ñu dab te li nu waajoon tabarakallahu dafa mel nii sax euh, ëpp na lii waaye loo xam ni li wolof di wax ni li juwa jeexul jugu ñu ngi rafet lu kàddu yu fi jib euh, dafa mel ni tabarakallahu leeral ngeen lu am solo indi li nga xam ni sunu maam Cheikh bind na ko Serigne Babacar Sy waaye tam indi ko ci dund bi ñu nekk nii ba nit ñi mën koo jëriñoo euh, lu am solo la ñu ñaan rek yàlla euh, yokk fanam te ñu barkeloo li nga xam ni moo fi wàcc. Euh, mel na ni moom wane na personnalité Serigne kër si waaye ni ñu bind li ngeen jàng ci mbindam wane na moom tam personnalité te tabarakalaa kon foofu lañ loolu ñu indi woon tey ci anniversaire góor gu tedd googu. waaye tam dellu woon ci bind yi nga xam ni euh, kenn ci njabootam di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si bind na ko ci dundam di ko ko fayale bor bi nga xam ne moom la ko lebal ci turandoom ah jot nañ ci am lu ñu barke tabarkalaaw ñu doyloo loolu di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix defal ko jullit yëpp te li ñu fi dégg yëpp ci njàngale ak ci orientation yàlla may ñu cër ak xol yu ko nangu ba mën ko jëfee mu doon njëriñu réew nekk njëriñu lislaam kon ñu leen jox daje incha ba beneen jamono wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suleymaanu amrin mu sawiyum bi najdatin xalili yu diinin ني لمحمد